Euh, voilà bon waa kay euh, sëñ bi ñu doon laaj sa xalaat ci Sénégal yi nga xam te ni des nañu màkk yow euh, ba yan matuwaay la nga yaakaar ni nguur gi war na ko jël. bon d'après bon information yi nga xam te alhamdulilah rabbil information yi nga xam te ne dégg naa ko bon damay njëkk di sant yàlla bon bi ma déggee ne am na incendie am na ay dee biir màkk dama naan loolu saxiit la. maanaam lu lu du coo du coobare doomu aadama mais yàlla day insiste si bépp coobare bon ñu leen di ñaanal yàlla na leen yàlla boole si ñi nga xamante ne dañuy tàbbi àjjana bon d'après nag bon boo déggee tey information yoo xamante ne mënuñu am lu leer nee na ñu am na benn jigéen boo xamante ne décédé na ñu joxe turam après ñu ne gisuñu kooram am ñu ne décédé guñu bon ñu ne yeneen dëkk yi joxe nañu. bon soo ni nit na nangam ak nangam mais d'après sénégalais yi ay dis am nañu ay disparis bon tey réew mi ma nekkoon comme Nouakchott des fois ambassade bi dafay jóg taxaw si loo xamante ne bon gouvernement bi moo ko fay teg mu war dugg si hôpitaux yi war a def ay recherche ñu xam ndax par exemple information yi nekk màkk dafa am ñoo xamante ne dañoo Sénégal kese la wala dafa am une nombre boo xamante ne ñëpp dañoo dispari wala lii wala nangam. comme que ay sénégalais lañ dañ fi jóge woon dem ziyaara ji dem màkk xam nga ci ponk lislaam yi la bokk donc nombre bi nombre bi fi jóge woon jàpp naa ni état bi xam na ko xam na aussi lim bi naka la toll bon euh, ña fa des aussi bu fekkente ji ni chiffre réel bi xam nañ ko bon état jaru muy nëbb sénégalais yi na wax ni temps de personnes kat ñàkk nañ ci seen bakkan ko defee ñu ñaanal leen xam xam ni aussi tamit yàlla mooy mooy def lu ko neex daal donc loolu kenn mënu si dara mais man li ma bëgg rek mooy peut-être xëy na ministre affaires étrangères bi nga xam ne moom moo yor wàllu wàllu wàllu yi nekk bitim réew mu gëstu bu baax xoolaat bu baax aussi tamit information yi ñuy jox sénégalais yi am na solo trop parce que ay doomu sénégalais lañ bon ak yeneen i doomu réew yu fa nekk donc mais ñun tamit war nañu xam exactement wax fa dëgg yàlla suñu droit ñu mën a xam sincèrement parler euh, suñu yaay yi wala sunu papa ya fa demoon doon aji ñan ak ñen ñoo fa dem ñoo fa des xam nga ñu. donc tout d'abord nañ leen ñaanal parce que li xew mag yaakaar naa ne depuis des années des années mosu fa xew. moi tout d'abord je dirais que l'état saoudien état saoudien bi ci boppa ñoo war a le pèlerinage à la Mecque c'est très important parce que man en tant que tel moi je suis un chrétien mais chrétien yeeg sama mbokku jullit yëpp dañ ko naxarlu et ensuite bala may ñëw ci phase état bi état bi dama bëgg monde entier bi yëpp ñu xoolaat pèlerinage bi képp kuy dem ñu former ay secteur ak ay groupe wut ay coordonnateur yoo xam ne par exemple groupe buy dem dafay am coordonnateur am un chef de group boo xam ne au moins wutaleen ay badge ñu leen di mu di di identifier mais xoolal nee nañu sax xamuñu sax kanakat moo dee y nombre de nombreux blessés mais sa c'est egg loolu mënoo ko mënoo ko sax nga expliquer bon et puis sànni Jamra bi c'est vrai que mooy mooy dernière phase bi bi ñu ko defee di dem naka la ñu mënee tëj beneen porte bi mais loolu ça c'est extraordinaire donc ñoom balaa ñuy balaa ñuy dem ci ay étape chaque fois war nañu xool ndax lii ñu xool ñaata nombre moo war a dem ndax def par wala par trente bu kii demee ñeneen ñi ñëwaat. ñu bàyyi yeneen 30 demat et de suite parce que fu ñu toll nii le monde a évolué. bon déjà génn dem bitim réew rek am góom-góom rek day métti ci peuple bi yëpp sénégalais ñun ñu xiifool sax ñoom ñu jël seen lépp seen kàttan seen mën man dem foofu fexe fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne dañu fa réer seen mbokk yi gindiku réew mi gindiku loolu moo nekk le premier chose bi ñu war a def war ñu see xaar sax naan ay di dañu war a jël seen disposition bopp. dem gëstul ko seen bopp soit que ñu jël ay envoyé ñu dem foofu topp ci commission bi topp ci affaire yi ba affaire kii parce que tamit am na ñoo xam ne jaaxle nañ trop ah. trop parce que disparition s'il y a des ngeen disparition déjà y a quelque ah kon mbokk li li war a def mburu Sénégal mooy mu jóg taxaw ci amul ay ambassade ak ay ay ay consulat ak yooyu ñu jël un commission spéciale la recherche de au moins bu fekkee ne yàlla daf leen moom foofu sax nit ñi am un mémoire tranquille mais. yow léegi la ngay xaar ci état du Sénégal pour sunu sunu disparu yi. man état du Sénégal li mu ciy wax du bare c'est parce que il y a des hommes qui sont qui koo xam ne ñoom la ñu yóbbu gis nga nit ki li nit ki da koy jox li mu li mu yelloo li mu mun man je pense que il faut que ñu réorganiser fii à not base d'abord wax leen d'abord naka la ñuy ajji naka ngay def ak loo war a def. mais ñii demoon ñëpp en ce moment boo xoolee ki ñu ki ñu ki le commissaire en tant que il peut même pas identifier xoolal tey journée bi ñu ko liggéey lan la wax 7 ak 18 ak 37 en en ce moment mais 7 loolu loolu amul fenn moom laa lay il faut ñu former ay groupe ku dem ñu xam ne que kii dem na à telle heure su ñëwee ñu xam ne à telle heure ah kii demoon ñëwul ñu xam mais c'est extraordinaire xoolal engrais mag mag fii engrais eh, bi fii engrais bi ñaati nit ñoom ñoo fi ñoom ñoo fi desoon mais ça c'est moo je suis un chrétien mais ça am na loo xam ne gars yi war nañu ko xoolaat moo grand. waaw matukaay bi ñuy séntu ci nguur rek mooy mu taxaw ci def ci kéent laayam kattan waxtaan ak euh, jéem a jege waa Arabie Saoudite ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk gëstu bu baax xool tamit ñun suñu doom yooyu ci laxa la ñu nekk ñu jox ñu information bu nga xamante ñu ni du wóor bu fekkee dañu ni bon seen bakkan des na fa. ah ñu ñaanal leen ñu état bi jéem bu dee dañ leen fay denc ñu denc leen bu dee état bi tamit jàpp ne dañ leen war a mën indi jébbal leen seeni i mbokk ñu jébbal leen seen mbokk mais daal li ma mën a wax ci gàttal ci loolu mooy état bi bu jëlee na jël ay responsabilité ma ne li ñu annoncé su fekkee ne loolu la nañ ko téye foofu mais su fekkee ne ëpp na loolu nañ annoncé li am parce que bu ñu ko annoncé wul au plus tard day feeñ. parce que bu fekkee ne dafa am sept personnes yoo xam ne seen mbokk gaañu ñu gis un huitième koo xam ne kenn déclaré ko mbokkam gaañu gis jusqu'à dixième jusqu'à day indi benn benn méttitu xol daal. parce que li li li nga xam ne mooy mujj moom na njëkk rek dëgg bu fekkee ne six la ñu ne six bu nee cent ñu ne cent xam ne cent lañ deele cent lañ deele tout le monde le sait et c'est comme mais boo nee huit huit personnes déclaré nga gis keneen mbokk ci la bokk kon mooy neuvième. keneen ne mooy dixième kon déjà yaa day indi benn affaire boo xam ne day day métti xool nit ñi on dit la vérité mooy dix personnes ñu ne dix vingt personnes ñu ne vingt personnes mille personnes ñu ne mille personnes bu mu fa yegg fii ñu ko calculer yàlla na fi am waaye bu ko nañ ko wax.